acteurs politiques les acteurs politiques gars yi comprendre mu ne eh, da ngay da ngay da jéem a ngoy ci pouvoir bi li nga bëgg du lenn mooy lu dul ngoy ci pouvoir bi waaye amoo courage u taxaw dëggal sa bopp euh, di lu triste nag ba pare nekk loo xamante ne nii eh, du sa cër euh, mu ngi wax ak Macky Sall Barthélémy Dias quoi mu ne Sénégal ah dina jug pour la wax leen pour respecter constitution bi ndax 23 juin ci fàttali rek histoire affaire assemblée nationale la donc xam nañ fa mu mujjee woon donc nag peuple bi euh, souverain na et dina apprécier à bien. xam nga xam nga soo waxul lii annoncé na conférence de presse à 15 heures. Ah, c'est-à-dire mun naa la wax leen suñu waxul lii ils ne voudraient pas perdre leurs électeurs. parce que lii communication politique la bu ñu donner l'impression d'être d'accord avec le report avec avec avec le report. mais ils vont participer quand même. mais ils vont participer au ils vont gën a ils vont tous waxuma la Khalifa Sall rek ils vont tous parce que dafa am loo xamante ni ñoom ñëpp ils voudraient hériter d'un pays bu nga xam ni institutions yi dañoo stable ñoom candidats yëpp dañoo bëgg hériter. surtout être un président un président légitime. légitime. ñoom ñëpp bëgg nañ nekk un président légitime ñoom ñëpp parce que pour une première fois dans l'histoire de ce pays là on va pas sanctionner un chef d'État sortant on va choisir un président président bi ñuy fal dafa war a légitime ki ko war a fal war a valider sa son élection mhm. dafa war a nekk koo xamante ni kenn du duti ci moom donc ñoom ñëpp ils voudront ils vont partir ils doivent ils doivent l'obligation mhm. pour sauver le pays pour sauver le Sénégal de demain ils ont l'obligation de Ah, il a un avenir certain au sein de l'Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yaakaar et je et je pense je pense et je pense su nekkee li ñu koy jiiñ dara newu ci su nekkee lii ñuy wax dara amu ci il doit continuer à rester notre candidat je pense je le souhaite pour ne pas donner raison aux gens qui pensent que sa a été mis en place pour l'écarter am na ñu koy jéem ci j'ai loolu moom li ma wax li ma wax dafa leer man xam nga je suis un maquis pur li may bañ mooy nit ñi jam baaramu tuuma ki nga xam ni moom laa gëm. jàpp ni lii daf ko def pour xañ Amadou. donc pour moi même même su nekkee ah, ajandi nañ élection yi dem na déglu rek même su nekkee ajandi nañ élection yi demain la coalition Benno Bokk Yaakaar reste et demeure moom mooy sama souhait te loolu moo koy taaral moom en tant que président de la coalition Benno Bokk Yaakaar hmm. et que Amadou aussi soit à la disposition du chef de l'État et pourquoi et du parti. et du parti surtout. que mu bañ a jël yoonu boppam. dégg nit ñi ko mais Abdou rectificatif à faire mais Abdou parce ci lii weesu nii kon. taxawoon ce que je veux dire ce que je veux dire. ce que je veux dire il a le temps de rassurer beaucoup de personnes. il a le temps de faire beaucoup de corrections parce que pour man pour man man je suis militant de l'APR te gëm naa gëm naa président Macky Sall orientation Amadou Ba mais pour man. qui va nous payer l'argent bi ñu jël defar ci. ay oui oui <laughs> waaw ça ça mais attends attends Jambar yaa a des y a des y a des candidats y a des candidats qui pas préparés am na ci ay candidats yoo xam ne jënduñu oto mbuusewuñu yootaa. mais ñoo loolu ñoom la mais ñun. c'est comme suñu xaaj waaw bi ñu la va servir à la la caution dañ leen koy delloo fi mu ne nii dañ leen di delloo seen 30 millions yi. l'argent qui a servi à confectionner les les les les badges. peut-être léegi temps bi ñu pour dem. enregistrer mais est-ce que mais est-ce que non attends tu vas dire non attends investir dans le tirage des bulletins. oui mais attends mais ça ce que je veux dire. ce que je veux dire ce que je veux dire la stabilité de nos institutions n'a pas de prix il a un coût nag mais il n'a pas de prix la stabilité de notre pays amul njëkk. est-ce que tu comprends si nous pouvons une la garanti d'une d'une élection transparente et libre où tout le monde participe ça n'a pas de prix su ñu bëggee am une élection transparente avec des des des juges yoo xamante ni kenn du leen kenn du leen du leen laam-laame ça n'a pas de prix ça cinquante milliards mu na ci pour loolu parce que pour la confection des billets des des bulletins et autres c'est cinquante milliards cinquante milliards tuuti na ci parce que tamit la stabilité de ton de nos institutions moo gën a cher milliards. la stabilité de notre pays moo gën a cher cinquante milliards il faut que les gens gens arrêtent nañu kan moo ñuy delloo suñu cinquante milliards. si aujourd'hui on avait organisé une élection des élections mu am ay doomu aadama par rapport à des résultats donnés le doute s'installe mu am ay doomu aadama yu ci ñàkk seen bakkan cinquante milliards mënu mënu ko mënu leen delloo si waat. Mm-hmm. donc quand nous sommes a une crise institutionnelle quand nous sommes dans nos institutions sont affaiblies par des accusations et autres ça y il faut que les gens acceptent de s'asseoir autour d'une table et de discuter Sénégal je dis discuter Sénégal bàyyi préjugés yi bàyyi comportement acteurs politiques yi discuter le Sénégal parce que le Sénégal que nous que nous allons avoir demain c'est le Sénégal où il y a le pétrole le gaz le Sénégal que nous devons avoir demain Adama Balma la dafa mel ni euh, nous sommes en contact avec euh, Serigne Mboup l'un des candidats présidentielle euh, président ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yaa ngi en direct ci Sénégal 7 président euh, yaa direct ci Sénégal 7 bu dee yaa ngi ñuy dégg te jot bi may la ko on est en direct euh, salaamaaleykum. daf waa dafa dafa mel ni waa allo salaamaaleykum d' accord euh, xam naa ne dinañ entrer en contact moom ma bàyyi la nga continuer ndaxte foofu la ñuy jaar tëj émission parce que Sénégal pour man et au-dessus de nous tous mhm. réew moo xamante ni demain day am day am pétrole ak gaz dafa soxla stabilité de ces institutions dafa am stabilité dafa soxla sécurité bu wóor te loolu yëpp lu ñu war a waxtaanee ci dialogue bi la na ñu fàtte suñu bopp jël Sénégal teg ko ci kaw parce que man man man moom laa gëma ah. man je crois à ça et je pense que les acteurs politiques que mu nekk pouvoir que mu nekk opposition war nañ accepter toog c'est le moment que ñu accepter ñun ñëpp toog autour d'une table pour sauver ce pays pourquoi je dis sauver ce pays parce que nous sommes dans une crise institutionnelle l'instabilité des institutions. baaxul dafa mel ni euh, euh, toujours le président Serigne Boub dafa mel ni on est en contact avec lui salaamaaleykum président. Euh, kooku président Serigne Boub. d'accord xam naa ne dinañu ñu ñëwaat tuuti ak moom bon si fekkente ne waaw ñu ñu tëjee foofu noonu l'émission quoi. voilà donc man loolu laa appel boobu laa doon lancé a tous les acteurs politiques de la République du Sénégal. Mhm. ak fu ñu mënti féete. ñu jël Sénégal teg ko suñu kanam ñëw toog waxtaane réew mi pour ñu am des institutions très fortes pour ñu am stabilité dans notre pays pour ñu am sécurité ba ca war ci biir réew mi mhm. suñ ci paree nag war nañ mën a dem élection tranquillement mhm. man loolu laa gëm te su boobaa nag ku mën sa morom duma d'accord merci Abdou looy jeexale waaw li may jeexalee euh, mooy jaajëfal Adama Mbissane yow ak sëriñ bi nga xam ne bàyyi nañu fii di lancer un appel encore une fois euh, doon naa ko wax euh, récemment très très récemment euh, ci plateau yu ma doon def ne bu jàmm amee ci réew mi jamono ji askan wi mu ngi ciy dox naturellement bu jàmm amee acteur politiques yi ñoo koy mottali bu jàmm amul acteurs politiques yi ñoo ko entraîné. tout à fait donc loolu noonu ku ci ne si jël see responsabilité njiitu réew mi également. Euh, du def troisième mandat wala mënatul nekk candidat mais na veiller d'une manière très très très impartiale parce que man le fait que qu'il soit euh, président de parti président de coalition me pose problème alors qu'il est président de la République et doit veiller au bon déroulement du euh, du de de de l'élection mais également au bon fonctionnement des au bon fonctionnement des institutions donc là ça problème donc na veiller d'une manière impartiale à ce que tout se déroule bien et que et que le choix des des des des kii des des, euh, des Sénégalais durant le dialogue aussi ñu bàyyi leen xel. c'est-à-dire que ce un dialogue impérativement inclusif et que sénégalais yi ku ci ne lii di génn en termes de conclusion si dialogue bi mu bañ a waroo ak li nga xam ne moom la sénégalais yi bëgg askan bi voilà merci merci beaucoup Moussa euh, moom lu ma ci wax mooy ne bon man personnellement. Euh, le président Macky Sall yaakaar naa dama koy wax souvent ngeen koy dégg gëm naa ne ku liggéey réew mi la am na loo xam ne ni aussi euh, <coughs> am na fu mu jëlee réew mi te aussi am na fu mu ko yóbbu donc liggéey na fi liggéey bu am am solo ci pàcc yu yu bëree bëri donc euh, bu mu génnee ne duma def troisième mandat euh, man bind naa benn article ma ne le président Macky Sall entre dans l'histoire mais nag na moytu def erreur bi nga xam ne nii histoire boobu ñu wax histoire bu ñuy bind la ak un petit h donc mu ngi pour la première fois lu mu lu mu créé ni pour la première fois mu am ci réew mi espérons que ne dina jur jàmm parce que bu ñu dégloo Adama Fall voilà voilà bu ñu dégloo Adama Fall lu muy wax xel day dal mais moom position am lay waxi parce que ñeneen ñu aussi waxuñu te ñeneen ñi démb wane nañu seen bopp espérons rek que mu jur jàmm mais aussi li xew mën na créer un précédent dangereux lu tax ma wax loolu parce que ëllëg ah, nit mën na nekk mal en point ñu dem parrainage bay waaj a dem élection donc ñu organiser wu ne nañu attaquer accuser les juges du conseil constitutionnel ne dañ leen a ne dañ leen a ger am nga doole assemblée nationale tu imposes une commission d'enquête parlementaire. mais si c'est pas avéré que des sanctions ah, s'en suivent. maa ngi ñëw contre les accusateurs une commission d'enquête parlementaire parce que sa doole may na la ko. Mhm. boo leen demee ca installation ba ngeen yekk lu ne conseil constitutionnel juge yi dañu ay malaaka lu ne créer nag benn conflit entre les deux institutions le pouvoir judiciaire le pouvoir législatif. conflit créé. conflit créé. donc les politiciens. les politiciens génn moi je les politiciens génn commencé martelé. d'accord présentement ah, présentement. am na crise institutionnelle am le président de la république génn. présentement ce pays. d'accord comme crise institutionnelle am na. présentement sauvons ce pays là est-ce que le pays est en danger. c'est-à-dire présentement dans les discours dans les déclarations. c'est un précédent dangereux c'est-à-dire moi moi je veux être positif. moi je veux être positif je veux continuer à être positif. soyons positifs. moom xam nga moom soyons très très très positifs. man dama ko xam c'est un bon communicant. day am fi nga nekk parfois da lay jëg oui soyons positifs soyons positifs soyons mais en tout cas c'est un précédent c'est un précédent dangereux c'est un précédent dangereux te lii ñu poussé élection yi quand même xaw na xaw na léger soyons soyons soyons positifs mais merci non xam naa parce que du moment où euh, communicant la dañuy mais soyons continuer à être positifs d'accord soyons blancs comme ma soyons bleus dans le cœur comme votre chemise Djibi et nous, nous portons du rouge pour la République. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous aussi, nous les remercions. Adama Fall, membre de Benoît C'est un plaisir. partagé vraiment Missane jaajëf. jaajëf on se donne rendez-vous ci kanam incha allah Abdou jërëjëf. merci joxe rendez-vous Géewal à partir de 21h. 18h incha allah Mansour Sissi Cissé sera là dañ ma cee génn rek wala garaaw. 18h incha allah Mansour Sissi Cissé dina ñëw. Euh, ci kanam tuuti di ngeen am yeneen i plateau yuy ñëw euh, ci kanam tuuti jombul kii di euh, l'honorable député Ismaïla Diallo dina fi jaar. incha allah non non du ma ko delloo déglu naa ko de message bi dama ko delloowul. d'accord très bien dama ko ko delloowul. daf ma man lay kii daf ma yëngal <laughs> mais no non moom moom ci émission yëpp la bokk ay ja mesdames messieurs ce fi vraiment un plaisir ñu ànd ak yéen ci euh, édition spéciale bu ñu leen defaloon avant pendant et après le discours du président de la République Macky li ñu mën a jàpp daal moo di ne euh, fi toll nii élection yi tuxal nañ ko dialogue dina am ah, ba pare itam ñu ñu waxtaanee nu ñuy euh, dem ba euh, lii di commission d'enquête ba nekk ci assemblée nationale mën a daal di yegg fa mu jëm loolu daal mooy kàddu njiitu réew mi di son excellence le président Macky Sall la nag yóbbu nañu 14 heures d'accord nañu nangu nañ mais finalement wàcc na li mu war a